si euh, mën nga ñëwaat jël euh, six bi comme ça euh, Kiss Me moom moo ñu fekk si c'est un artiste que nous allons présenter très rapidement gis nga jaan bi matoon Super 7 jeudi ba le passé tey dama njort ni moo <laughs> corote li nag mooy corote dëgg parce que jeudi dernier on l'a reçu vite fait joxoon ko rendez lundi malheureusement il était un peu souffrant fan semi di ko xaar pour mu expliquer ñu projet yi nga xamante ni moo ngi mais heureusement ba Super 7 ci télévision Dia la bokk euh, donc on peut le recevoir quand on veut et lui on préfère le recevoir seul euh, c'est-à-dire mu nekk invité spécial bu yeewu leen euh, voilà il est là mais on, on verra revenez un autre jour <laughs> Dorothée <laughs> Super 7 mu ngi ci ginnaaw on vous le montre euh, pour euh, wax fan sa mii xaar ngeen ko lundi malheureusement euh, il était souffrant mais ce matin il a respecté l'engagement mais ñun malheureusement ñoo bëgg émission bi lu nañu dugal ko ci dugal ko ci bilaay <laughs> waaw ñun daal ñoo bëgg lépp rek lañ ciy dugal Mariam Faye Mariam Sélé Kane Super 7 Kiss Me ah Aïdara tout le monde tout le monde il est dedans n'est-ce pas souple donc Kiss Me Kiss Me voilà Pape Cheikh donc euh, benn sénégalais la donc de son vrai nom donc Léo Diouf moom nag euh, aujourd'hui il fait partie des trois sénégalais les plus euh, yu gën a siiw à l'étranger et parce que c'est quelqu'un boo xamante ne depuis qu'il a commencé la musique en France il a toujours prôné le Sénégal donc à travers ses vidéos et tout ça mm-hmm. donc moom nag il s'appelle Kishmi donc Kishmi bonjour Euh, aujourd'hui, c'est une fierté de te recevoir. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps, mais aujourd'hui, on voit tout le travail que tu fais déjà au niveau de la France et puis avec les vidéos, notamment la dernière vidéo que tu as sortie qui est moto. Est-ce que tu peux nous déjà parler un peu de ta carrière euh, au niveau de, Paris ou bien de France Ok. merci de me recevoir, l'équipe TFM. C'est, un honneur d'être là, de représenter. Euh... Les Sénégalais. <laughs> Sénégalais. <laughs> Sénégal. non je donc ah. euh, merci de me recevoir. Euh, mon parcours c'est j'ai commencé en ah. euh, j'ai commencé avec un producteur qui s'appelle DJ Kayens mm. qui m'a lancé petit à petit. J'ai commencé à, faire du kuduro à la base. Mm. Du kuduro à mélanger avec un peu de dancehall. Mm. avec euh, un chanteur qui s'appelle Original Fox. Mm -hmm. Donc nous on est basé à Bordeaux mm. et euh, donc je m'auto-produis. En ouais. fait, euh, je, tout l'argent que je gagne par rapport au, au, showcase, au festival que je fais, mm. je réinvestis dans mes clips et j'essaie de m'améliorer petit à petit. -hmm. Et, euh, et, et c'est un honneur de représenter quand même mes racines, le Sénégal, en France. D'accord. Il y a les albums forts. Merci <laughs> pour me tester. <laughs> Mais justement là, ah, là par contre je parle pas de. boobu rëy c'est vrai ah. boobu dégg na ko de. baax na boobu dégg na ko de. oui parce que vraiment euh, sa kanam bu ñuul et yooyu. nga gàtt. ça je peux pas je peux pas. Oh

alors Kizmi aujourd'hui euh, est-ce que tu es euh, vu comment tu es ta popularité au niveau de France tout ça tu es en train de monter ah, tu fais partie des Sénégalais les plus réputés actuellement euh, déjà est-ce que tu tu peux nous parler de tes de tes projets en France on va dire que niveau parce que moi on va dire je me je vais me, me comment dire ouais je vais me positionner dans l'ambiance vraiment les musiques festives qui donnent le smile aux gens en fait donc en fait euh, je peux me comparer à Monsieur Tombola. On va dire que Monsieur Tombola est au-dessus. Parce que vraiment, avec son quart il a, tout fracassé. Mais niveau, niveau je, suis pas loin de le talonner en fait. Euh, après, on s'est croisés vraiment dans des, plusieurs festivals. C'est donc, euh, on va regarder juste euh, extrait de la vidéo et juste après, on revient. Qui la la bête, qui la bête, mettez la bête. voilà Kiss Me la tudd mu ngi jógee euh, Bordeaux euh, mu ngi ci ay projets certainement. ay album ak yooyu euh, ouais est-ce que tu peux nous parler de tes projets. mes projets bon mais là je vraiment je, on, on fait la promo sur la moto. Mm-hmm. et après ben, je vais faire une petite surprise pour les Sénégalais. Mm-hmm. je suis vraiment en studio pour pour ça. Mm-hmm. et j'espère revenir vite pour clipper ici au Sénégal quoi. Ouais. super projet yi jàng jàng wolof. voilà <laughs> aussi apprendre aussi le wolof. après le wolof c'est le contraire. on va essayer les deux mais ça va être dur. <laughs> wolof. en tout cas merci euh, et puis euh, je te laisse euh, c'est ton mot de fin de la journée pas de la vie. je te laisse euh, le mot de fin. ok dis... À tous les Sénégalais, merci de me sur mes réseaux sociaux. J'espère revenir vite au Sénégal. et faire découvrir mon univers, de la, le smile et tout ça. Quoi, voilà. Ok, merci. merci. Super. Merci. Alors, euh, donc, pour, pour, pour, ah oui. pour, pourquoi, tu t'appelles Kiss, Kiss, Me Ça, c'est une question. <laughs> non, on va dire que j'ai mis bisous. Mais pour pas avoir de problème, il y a ma femme ici. <laughs> tu t'es appelé Kiss Me quand même Pardon Kiss Me. Oui. Quand tu dis ça aux Mais c'est Kiss Me avec I. Hein. Ah, avec I. C'est pas un E. Ah. C'est la variante. Kiss me, quoi. Kiss me, voilà. avec un I, pas avec un E. <laughs> merci. a pas merci. chance pour la suite. Merci. Hein. Merci. Merci. Euh, exclusivité ce matin, vidéo Boubès, Boufatou Gewel, on n'a pas le temps, mais nous avons a tout a tout bas. Il a a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. a tout bas. Il a a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Il a tout bas. Euh, bu ko defee buñ ko xoolee pare doog a tàggoo Alfi ah yoonu yoonu yoonu yoonu Touba. yoonu Touba xam ne ñooy ànd si bu ñu Touba il a Bercy. il a Bercy n'est-ce pas ak Ndeye Bercy damay jëli ñaan Touba. voilà mais Baye Cheikh da ngaa tudd Touba sama xel dem ci Mamadou Niang Parador. sama sopp ba ah, ah. ndax dëgg-dëgg Touba moom. ni mbàkk yu def rek lay def. wallaahi Touba daal bernde. Mhm. Touba daal bernde. wallaahi bernde mbay bernde mbay <laughs> donc vidéo bi tey lay doog a génn yéen yéen ko njëkk seetaan euh, yéen ñi xëy àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média ñu ci nuyu suñu xarit yëpp ak euh, képp kuy taalibe damay faral di wax naan xam nga ñun murid nag dañoo dañoo dañoo bëri dosé dañoo mën a jaay affaire euh, période de màggal ci la ñuy dosé xam nga jaay maanaa da ngay gis ni bu màggal gi jib see rek aéroport yëpp ay fees saxaar yi wala ngaan ñu jiital bépp waruwaay bu ñu duggee suñuy oto nag dañuy simi suñuy mbaxana toog ndax dañoo yaru euh, bu suñuy euh, wëlis fees feesee dell ak xaalis bu ñu demee Touba euh, jébbal ko suñuy sëriñ ndax ñàkk tedd jëf jël la ñu wax donc woy wi nag dañu koy bégalee képp koo xamee ni rek da nga di taalibe ba noppi itam di waajal màggal gu mag gi le 8 incha allah télévision Futur Média di ci préparé lu am solo Fatou Gueye nag génne woy wi clip ko def ko yóbbalu màggal. Samba nee na

mooy nag euh, dina jàll en boucle tey ci bis bi ci télévision Futur Média ndax yóbbalug euh, euh, màggal El Hadj Ousmane Mbaye Garmi mm. defe naa woy wi saf na la ndax kiñ ci woy waaye woy wi saf na la ndax ki ko woy. waaw ñaari yi ñoo daje luñ ci wax rek répétition lay nekk. ñaari neex neex yooyu noo dajee Baye Fall Baye Cheikh wallaay Baye ndax ki mu woy <laughs> day day nit ku yàlla baaxal. ki mm-hmm. koy baax. Mm-hmm. ba pare nag ñu woy ki nga xam ne kii dëgg-dëgg moo suñu yaakaar tey ak ëllëg. Mm-hmm. te dëgg-dëgg bu ñu dëgmalee màggal nag nii ñu def rek la ñuy def sañ seen doo defar ba mu baax dem tubaarkàlla fekkee bernde yi mhm. ñaan fa tam ay xéewal ma ndokkee ci ne sëñ Moussa Abdou Khadir ndax man mooy mhm. sama sëriñ wallaay mbay sama xarit waay sama sëriñ su may dem damay ànd ak sama ñaari xarit yoo xam ne mhm. dëgg-dëgg alaaji maari rek lu ñu gëm waaye balaa maa teral ñoom lay jëkk jaar loolu moo lay wan ne mbokk ak àndandoo dafa am solo ñu cee ndokkee nag soxna Asisi bu sëñ Maodo xam naa ni bég na waaw moom moom moom bu gisee lu baax day kontaan kon ñu ko ndokkee lu baax bàyyi si mu ngoog lu